ci kilifa yu tedd yi mbokk taalibe yi ñoo ngi jële ci kenn ku nekk ci yéen yéene ju rafet ëmb ko ci ñaan gi ñu yonent bi defal nuyoo alayhi salaatu wasalaam te mooy ne yal na jàmm nekk ci yéen ak yërmande borom bi tabaraka wa taala ak barkeem di ko sant moom tabaraka wa taala gindi nañu ci boppam ñu xam ne ay jaamam lañu nangu ko gën ko it moom subhanahu wa ci atteem ak dogalam gannaaw bu ñu nuyoo nag sant ziyaar lañ tey daal di teg mooy jégglu ci yëkkati kàddu bi ndigal xanaa day nattu murit waaye li ci sunu kanam lépp ci defaru ku mu dese déglu moo la war waaye du digle dañoo gëm rek ne bu ñu yàggee fóotu ci seen mbaax gi dinañ set wecc te dinañ duy te dinañ defar fi ñu seddu ci waxtaan wi jigéen la jublu xàq ji mu yelloo ak warteefam moo sàkku xam-xam mook yaroogu yare mook sàmm ak sàmme amna na garal ci mbind né entre l'amour la maternité et la foi la femme est l'axe qui retient l'humanité sur orbite ku toll ni ci dund ak dundin suñu borom wul mbiram ben mbindeef ni mom mu diko saytu moo ko àtteel boppam suñu borom dafa wax ne wala tabanama aqu ahwaahum la fasadati samawaati wal ardu wa man fihinna wa man fihinna su fekkoon dañoo bàyyee woon doomu aadama yi dëgg ñu di ko àttee seen bakket kon dinañ yàq asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ponk yi ñu lim mboole seen alxuraan daf ci àddu xel nag waru mën a nangu waxi jaam man a fare kow ki ko moom donte di ko jéem xew na kon jigéen xaq jiñ ko war lool ak warteefam bu nu ko dee jàngat li nu war a njëkk yittewoo mooy xaq ji ñuy wax di ko jàmbate xul fu ne kan moo ko ko ameel ak nu mu ko waree fekkee dañoo tënku ci diine nag xaq ji jigéen njëkk a yelloo mooy xaq ji nga xam ne ay waajuram ameel nañ ko ko am na àq ci ñu tudde ko jur wu rafet am daa àq ci ñu jiital alxuraan ci dënnam am na àq ci ñu yëgal ko moomeelu moomeel gi mu doon moomeelu benn buur boo xam ne moo ko sàkk sàkk ndayam sàkk baayam kon ferñeenti ngëm am na xàq ñu def ko ci moom xàq la ci jigéen mu yar njabootam ci xooloo ci ku nan xanaa xooloo ci man ba war a baax ba war a jub ba war dal kuy wax xoolal ci man kooku moo mën yar kon xàq ci ñun ñu doon exemple ci suñu njaboot ñu doon ci suñu njaboot sëguwaay yu tey nga xam ne paat paat mag rakk ku jàq bu tàbbee ci sa keppaar rek di nga jëflante moom lu tax loola tooy ci moom moo tax ma ne jigéen suñu boroom daf ko mooñaalee nooy ak douceur boo xam ne bu mu ko combattre mukk ci boppam ndax di bëgg a góorgóorlu loolu suñu borom daf ko def ci moom jigéen suñu borom bi mu taxawee wax ne wala xadd karam naa ba ne Adama ba jëmmam ju tedd ja dandoo rek mën ngaa wax ne jigéen la indi teg lu tax kooku mu wax ne moo gën a tedd moom la gën a taral ci li mu bind jigéen la tàggate noo xam ne moom rek moo ko ko mën a saytul ci noo xam ne donate nu ko sunu borom defee mooy dafa fexe ba jigéen loola bu ko sàmbaloo gënal ko boppam mas naa dégg ñuy nekk di benn histoire benn soxna ci réewi tubaab yi boo xam ne dafa ànd ak doomam di traversé tali rek camion fekk leen war ci kaw doom waaye ci tiitange mi nee nañ yëkkati na camion bi ay centimètres yëkkati na camion bi ay centimètres na jàkk camion bi yëkkati ko ay centimètres loolu du force humaine kon li ci diggante jigéen ak loolu ko suñu borom sàmmaloo mooy yéene ci la suñu borom tàggat xolam ba bu bu dee ñëwoon tey mu ba max ko jiitu ko ci boobu politik la suñu borom def xoolal diggante ëmb ak jafte ak wasin bis bi ngay bés bi ngay wasin nag ñëw bu doom ji juddoo ñu ne la ndokk sa bakken normalement doom bu juddoo yaayam li mu waroon a njëkk def mooy wéq ko sànni ko fële ndax fi mu ko jaarale fépp ci ay tartar waaye bu doom ji di wadd rek mu jël ko tax ci dënn bi ne nah, sama doom bàyyi sax bu doom ji jooyee mu ne ko naxal sa doom kon war nañu xam ne jigéen cër bu rëy rëy la ko suñu borom jox ndax doom ji mu ko doom ji mu ko jox dafa bokk ci mission mu teel a def ci moom ak njub mu commencé ci bu muy tuuti di xarañi ci moom ci mujj commencé di xarañi ci nit kooku mu jur ak ragal yàlla ci teel di jëmbat ci moom fet ñeenti ragal yàlla di fexe ba muy doon koo xam ne waajal nañ ko ci boo mu nekk citoyen bu baax léegi nag koo ne femme au foyer mu mer te xamuñu ne ñàkk taxawe foyer yi moo tax ñu ngi ne fanax waaye kaso yaa ngi fees suñu doom ndax kenn nangootu la toog nit jigéen nit mooy mission jigéen mission originelle am mooy nekk soxna ak yaay loolu la ko suñu borom waajalee bu la jigéen ne bëggumaa jur bëggumaa sëy boo ko tuddee jigéen yow yaa ko tooñ waaye kooku du jigéen jigéen mission originelle mooy detre femme et d'être mère loolu la ko suñu borom waajalee kon jot na ñu jël conscience bu baax ci nous sommes ñu suñu borom nga ñun la incombé ci ñu wajal nit ta buñ ko taxawé woon kon suñu société bi ni mu mel kon du ko kon limay conclure crucial aduna jël dàq richesse ak dàq science taxul nit raw nañu xamné ne africains yi daf leen incombé que ñu restaurer la dignité de l'humain bi nga xamante ne fii la juddoo Afrique la juddoo ñun nous sommes le berceau de l'humanité waaye bu ñu topp rek nit ku weex samp ci àdduna xelu seen maxa ñun sikkim gestu yóbbaale ñu buñ ko nangu yàqu jikko yi bokk na ci yu bari yoo xamante ne xëy na xew bu fekkee loolu dafa jibe ci réew mii soxna jaara tëdd maam faawaat du wele tëdd fi yow sax daf lay yéem muy lu mel ni parité

indil ko médicalisation de l' avortement bu booyelee bakkanam lu mu mënti def bu ko ci lu bon fekkee ñu dindi ko ba jigéen yàqu sañ lu ne ñu taxaw nag di ko jooyal rey nga nit ki ba pare taxaw di ko yuuxul loolu mooy dëmm rey la jaale la mooy li ñuy def ci fekk samp suñu borom mandargaale woon doomu aadama ak si mu tegoon jigéen ci sañe ko ci sell ñu génne ko boyal ko ba mu yàqu ñu taxaw di ko jooyal ay droit lii moo xew bu ko defee ñu xam ne ñun ñi doon soxna jaara di ko roy bu ñu confondre wu la confusion ne nous mérite pas dama wax ne ñun moom bu ñu yàqu amoon sax dana tiit ba far defaru moom yàqu ndax xam ne am na lu ko jox Touba nag ak Soxna Jaara fii moom fi la sell des fi la dëgg des moo tax nañ ko sàmm loolu xam naa mooy fi may conclure ba xëj na bu amee ay question di jéggalooti rek ci yëkkati kàddu gi dama leen waxoon ne ndigal mooy nattu murit ñoo ngi nuyoo di ziyaare di delloo njukkal bu baax suñu kilifa yi nga xam ne ci wàllu wét ñoo teewee jotaay bi di jiital ci nuyoo bi suñu sang bu tedd Cheikh Abdou Mbacké moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma ñi nga xamante ne bi moo waral lii di ci kafital suñu kilifa suñu sang suñu sëriñ sëriñ Abdou Aziz Mbacké Madialis

liggéey nan lay nan la ñuy xaymaa liggéey boobu wala ban wàll la liggéey boobu am ci soxna yi ci koom-koomu réew mi waaye nag newuñu ay soxna kese dañu ne soxna yu murit kon day jaadu ñu daal di mën a définir lan mooy xam murit lan mooy soxna si murit dañuy taxaw tuuti daf taxaw seetlu ci jigéen ak liggéey ak jamono ndax xam nañ ne jigéen ak góor ñoo am ci àdduna te suñu borom subhanahu wa taala yamalewul góor ak jigéen waaye jigéen complément la ci góor effectivement te lépp loo xamante ne nii xaq bépp boo xam ne góor amel na ko suñu borom subhanahu wa jigéen amal na ko ko euh, bu ñu demee ci suratul ahzab ci fanweer waaye bi ak juróom ñu ngi gis attribut yu tedd yooyu nga xamante ne bii suñu borom subhanahu wa taala moom koy lim an inna al muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat fukki attribut yooyu jeex kon yàlla newul góor ñi rek jaamu waaye mu ne góor dana jigéen waaye nag jigéen dafa ne innal muslimina wal muslimat kon góor dafa jiitu jigéen topp ci ndax thème yooyu bu ñu ci waxtaan rek dañuy xaw a effleurer tuuti ndax bu ñu nee femme et travail ñenn ñi dañuy jàpp ne il faut que ñu delloowaat égalité wala la théorie du genre pour que jigéen mën a am wàlla jigéen ak góor bokkuñu waaye ay complément lañu te jigéen dafa mas di nekk acteur principal ci wàllu liggéey te loolu ñu ngi koy nemmeeku depuis jamono yi nga xamante ne bii la ñuy wax. échange euh, de troc moo amoon maanaam xaalis amatul woon damay am sama tablette bi ba koo weccoo ak euh, téléphone soxna Ndey Diop ku ci nekk xool quantité ba nga xamante ne bii moo lay doy ñu échangé ko kon booba xaalis amagul woon ca booba la soxna yi doon entreprendre yàgg na lool ca lañ daan defar ay jumtukaay yoo xamante ne bii danañ ko mën a wecceekoo ak ay rudiments alimentaires ndax booba xëy na dund jafe woon na lool waaye ci seen i pexe yu xarañ daan nañ taxawal di defar ay jumtukaay yoo xamante ne bii dañ ko daan weccoo ak jigéen ñi ngir ñu mën leen a jox la nga xamante ne bii day jaadu ci dund ko kon jigéen yàgg naa sonn yàgg naa entreprendre waaye yàgg naa sàkku koom-koom ci jamono donc mën nañoo jàpp ne sax jigéen ñi bokk nañ ci ñi njëkk a instauré kon euh, comme ni ma ko waxee ci plan bi rek dañuy ñëw waxtaan tuuti mën a taxaw si def taxaw seetlu ci wàllum entrepreneuriat laata ñuy ñëw ci seen contribution socio-économique doogo it taxaw seetlu ci lan moo tax ñu ne femme mouride ba lan mooy pertinence femme mouride ci contribution socio-économique ci dëkk bu mel ni Sénégal kon xam nañ ne benn dëkk munul dëkk bu moderne en tout cas munul dund te du créer ay entreprise munul nekk kon entrepreneur bi moy def li ñuy wax entrepreneuriat moy créer entreprise bi entreprise bi mané créer richesse richesse yooyu mën a créer ñeneen c'est de l'ordre macroéconomique muy liggéey muy et cetera yokku production loolu lépp jëm ci émergence ak développement kon benn dëkk mënul am développement durable te amul implication féminine maanaam jigéen ñi jàpp ci benn ndax àdduna góor ak jigéen la góor bu ci jàppee jigéen ñi dañ ci war a jàpp waaye ñaari dañoo seetlu ne jigéen ñi dañoo am benn njàmbaar boo xam ne si inné te loolu dinañ dina ñëw ci facteur explicatif li tax jigéen ñi di entreprendre li tax entrepreneuriat féminin ñenn ñi di ko tuddee leadership féminin am solo ci jamono jii li tax tamit ñooñu ñuy tuddee les femmes mourides ràññeeku ci loolu. kon gis nañ ne euh, historiquement am na ay dates yoo xamante ne bii ci la humanité noonu lañ koy waxee ndax. Euh, yenn institution yi structure yu mel ni Nations Unies ci mel ni en 1975 une conférence boobu nga xamante ni bii ci lañ ràññeewul jigéen ne jigéen ak góor war nañ leen a yamal ce qui est de l'ordre de l'impossible ndax yàlla mi leen sàkk yamalewu leen kon nit tuuti na ci def ko kon ginnaaw 1975 durant les années 80 dañoo gis ne yenn politique économique yi en tout cas yenn dëkk yi ñi ngi doon tàmbali di xalaat yenn stratégie la utiliser pour mën a impliquer jigéen ñi ci liggéey alors implication bobu ci walu partenariat lan mo waral lol dafa am ay facteurs yu am solo yo xamanteni ni bi tey jii ñu ngi koy seetlu bi ci njëkk mooy ay facteurs politiques gis nañ ne ci yenn dëkk yi te dëkk muy li ci ëpp solo suñu dëkk yi nga xamanteni ni dañ leen di ay pays sous-développés dafa nekk xeyna na mode bu yagul xëy na sax loo xamante ne bi yàgg nañ di ko def la waaye li tax ma ne ay facteur politique la mooy dañoo jël yenn stratégie imposé ko ngir bëgg a gëmloo soxna yi ne leen dañ leen di may benn xeetu chance wala dañ leen di dugal ci loo xam dañ leen da ngeen cee génnoon te mu mosuñu cee génn kon loolu soxna Ndeye mi ngi koy wax sànq ñëw ci wàllu parité ak xeet yooyu xam naa li nga ci ñëw ci ci jeexal bi kon les facteurs politiques de l'entrepreneuriat mooy Euh, yenn dëkk yi dañoo def ay taxaw seetlu taxawal ay plateforme taxawal ay disposition ngir soxna yi mën a gis seen mbopp ci wàllu entrepreneuriat maanaam di demal seen bopp benn du sax jigéen ñi rek ndax dëkk yu sous-développé yooyu amuñu euh, entreprise yu doy pour mën a jox liggéey ñëpp donc dañuy pousse nit ñi surtout jigéen ñi euh, ñu jëm ci entrepreneuriat ñi ñi gën a pousse nag ci entrepreneuriat mooy jigéen ñi nga xam ne xëy na seen njàng soriwul ndax gis nañ ne au

bu njëkk ba en tout cas historiquement góor ñi ñoo daan dem di jàngi moom mu toog ci kër gi kon su fekkee ne dem nañ ba jigéen ñi di commencer di retrouver wu waat ndax bu njëkk ba société yu njëkk yi ay société matriarcale lañu woon daanaka jigéen ñi ñoo yoroon kër yi te ji boo demee ci fu mu ne nii Casamance jigéen ñi ñooy moteur de développement yi ñooy bay ñooy boo demee Casamance téeméeri nit yoo gis yu yëngu ci bay euh, juróom-ñett fukk yi ay jigéen lañ dañuy delloowaat ak suñu position ba nga xam ne amoon nañ ko bu njëkk muy loo xamante ne bii lu ama am solo la donc contribution économique bi nga xamante ne bii entrepreneuriat dina ko am lu ama am solo lu mën a génnee am réew ci sous développement te suñu réew yi doon na réew yoo xamante ne bii xëy na ay réew yu sous développé ndax boo xoolee Sénégal damay faral di ko fàttali ndax day mel ne dañ koo fàtte. ñaar fukki dëkk yi gën a néew doole ci àdduna ci lañ bokk kon bu fekkee ne gis nañ loo xamante ne bii mën nañoo dimbale ba ñu wàññi ñàkk googu yokk productivité bi war nañ see mën a bàyyi xel kon war nañoo gën a booster entrepreneuriat féminin waaye nañ ko booster d'une manière optimale. Euh, lii nga xam ne mooy contribution sociale yi nag muy jigéen ji nga xamante ne bii am na euh, ay euh, objectif d'entrepreneuriat day am ay impact yu muy am ci njaboot yi ndax wax naa ko jigéen ji nga xamante ne bii dañ ko daan jox dépense. dépense bi doyut muy dem di uti lu mu ci teg yaakaar naa ne bu amee lu doy kenn waxatu ko kon dana am un impact fort bu muy am ci njaboot bi ci kër gi ndax dëkk bi dafa métti te yaakaar naa euh, panier yu ménagère yi bis bu nekk mu yow kon nag donte nag buñ doon liggéey ñun soxna yi di am milliards xorom sax waruñu ci kër gi waaye yaakaar naa du wàññi dara it buñ ñëwee

lu sax africain mais société yu daanaka du monde la kon bu fekkee ne nit ki yaa ngi amal njariñ saw askan dafay am nu mu lay booster noo xamante ne bii lu ama am lu am njariñ lañ li tax ñu am une particularité ak li tax entrepreneuriat féminin wala entrepreneuriat féminin murit am une pertinence dañoo seetlu ci murit yi surtout ci jigéenu murit yi dañoo am li ñuy wax l'identité collective mooy bokk pas-pas dafa am benn bindkat boo xamante ne bu ñuy wax Adam Smith ay nit bu ñu nekkee ci ab lëkkaloo bu ñu bokkul pas-pas bu ñu doon fenn te yoonu murit dañoo bokk pas-pas dañoo bokk luñ gëmandoo ndax fii ñu toog nii yaakaar naa ne bu nga bu fekkoon ne sang bu tedd bu Sëñ Sidi Maxtaar woote na balaa cinq minutes yee mat yaakaar naa bâche yi sax danañ wuyu kon bokk pas-pas boobu mooy tax lépp lu ñu dund dugg rek sumbandoo ko bi day yomb waaye jëfandoo bi day yomb kon amandoo liñ bëgg day yomb kon looloo tax entrepreneuriat ci jigéenu murit yi

su fekkee ne dajaloo nañ liggéey bi di am solo li ci topp mooy li may tuddee efficacité xam nga ñaari euh, yi ma tudd bu dajaloo rek efficacité day nekk un résultat prompt identité collective ay nit bu ñu bokkee pas-pas ba pare mën a gaaw ci dajaloo yaakaar naa ne efficacité mooy ñu ne lii lañ bëgg lii la ñuy am lu yomb lay doon ci moom kon ñaari condition yi bu amee troisième bii ma tudd dafay nekk loo xam ne lu naturel lay doon ci waxtaan waxtaanu leer ku nekk wax ca nam lam ca gis rek ñu wax ci xalaat foog naa lu am solo la muy xeetu tomb yu mel nii muy bii ñuy waxtaane tey ak lii ma gis na itam suba moom lañ waxtaan war a yu mel noonu ci lañ bokk kon ñoom ñi am xalaatu tànn waxtaan yu mel noonu ci ñoom lay tàmbalee euh, jant gi teg ci nag soxna yi doon waxtaan ñoom ci seen bopp soxna Ndeye ak soxna May ndax ñoom it seen waxtaan leer na tënku na tënku na mooy gàtt na waaye itam jot na gàtt na waaye jot na jot na mooy mat na kenn ku ne li doon waxtaane andi na ko ba mat sëkk xóot na itam nag te loolu baax na ci waxtaan mu koy laal ci kaw gi noonu rek mooy am na yuñ lu feeñ ci biir waxtaan ma jàpp ne mënees na koo tënk xëy loolu tam baax na ci waxtaan yu mel nii li nga xam ne feeñ na ci te mu mel ne dëppoo nañ ci juboo nañ ci ànd nañ ci ñu tënku foog naa ne lii soxna Ndeye waxoon ci tàmbaleen tàmbali waxtaanam rek mi ngi doon waxtaane warugar ak àqi jigéen ak it euh, valeur yi nga xam ne war nañ koo sàmb foog naa li njëkk a laaj mooy warugar yooyu ak àq yooyu ak valeur yooyu ku ko war a tëral kan moo ko war a tëral foog naa loolu la njëkkee kan moo ko war a tëral mooy source lan moo war a nekk source yooyu moom mu ne bu dee ab yàlla moo war a nekk source yooyu mooy ci yàlla la war a jële yooyu te loolu tam day lu am solo leneen loo xam ne feeñ na ci waxtaan wi soxna May moo ko wax mu ne liggéeyub jigéen luñ mas a xam la fii fi nun naka jeg kon di wax entrepre entrepreneuriat féminin du lu bees du lu bees du lu yees loo xam ne ay 1970 wala yooyu lañ ko xam fii fii naka jekk mi ngi fii am loolu tam lu am solo la. li ma doon wax mooy di jégalu ko dégg rek ci kilifa yi fi teew.

kenn ku nekk nekk sa wet di am looy xalaat ñii di am kenn ku nekk di dellu ci ay delluwaay yoo xam ne mën naa am delluwaay yooyu wérul ndax euh, foog naa ne am na yooyu bu ñu ko bëggee ñu ko bëggee wax ci yoonu murid wala xam ko ci yoon bi ñëw ba tuubaa da ci baax moo tax yéen ñii gëstu dikk bi ngeen dikk fii dafay am solo ndax ñii ngeen jàkkaarloo tey malheureusement amul temps jël kàddu wante ay borom ay kàngam lañu ay waru xam-xam yu mag. bu ko taat may woon kenn ku nekk ci ñoom mu jël kàddu mu sëñ Cheikh naa di dëgg li wax sëñ Mountakha mel noonu ak sëñ Cheikh Mbacke mi ngi ci ginnaaw ñëpp wante loolu ak njalbeen la danañ ci dellu si waat li may dellu ci ci delluwaay yi rek ñoom ñi li nga xam nañ ko boo demee Arabie Saoudite bu ñu bindee kaamil alxuraan dafa am ñoo xam ne ñoo koy certifié def ci tampon wane ne kaamil bii kaamil bu wér la loolu mooy lan mooy am na ñeneen ñu bind ay kaamil di ci ay yëf yoo xamante ne bii bokkut ak alxuraan karim loolu aussi dafay am ndax li mu wax léegi sëriñ Cheikh Mbacke malheureusement demewul noonu sëriñ Cheikh ñoom ñi ñu ngi nii ba ñu jàppee code de la famille dafa bind téere kalimatullahi hiya al-ula ba mu ko bindee ba noppi téere mi ngi fi mbooleem kuy doomu sëriñ Tuubaa signé ngi ci Alaaji Abdoulaye Si signé na ci eh, Cheikh Ibrahima Niass signé na ci ñoom ñëpp ñu signé te aussi ñun xam nañ ban position la amoon ak Senghor soxna si nga jégal ma ci loolu <laughs> c'est une opposition historique